salaamaaleykum mbokku internet yi ñu ñëw ak yéen ci revue de presse bi revue de presse bii nag établissement Touba Daaru Minam moo leen koy may waa kër Serigne Bassirou Mbacké nekk ca marché centrale bu Louga avenue El Hadji Malick Sy ba di Serigne Fallou Kane di taalibe Serigne Mountakha Mbacké yal na fi yàgg lool te ànd ak wér ñoom nag lépp loo xam ne waajur dina ko soxla ci ubbiteeg l'école gii ñu dëgmal moo xam sac bu sa doom di jàngee la ak kaye yoo xamante ni sa doom dinañu ko soxla moom am na saag yu dëgër këcc di nga ci jàng ba at mi jeex du yàqu am na tamit kaye yu dëgër këcc yoo xamante ni mën nga caa jàng ba école tëj te du yàqu moo xam muy kaye cinquante pages cent deux cent ak travaux pratiques nee na ma sama waa ji nag am naa kaye yu bees tàq yoo xam ne day ànd ak protège am da koy jënd rek doo jënd sax protège ma ne ko loolee am nga ko mu ne ma waaw kon nag daw leen ngeen seeti ko am na tamit big couleur boo bëgg big yu dëgër këcc ay blanco ak lépp loo xam ne élève soxla na ko waaye nee na ma sama waaj ji kuy jàngi nag faw nga yóbbaale ndox gurdu yi ma am gurdu yu dëgër këcc la te boo ci defee ndox du tàng day sedd guy nee na ma paree gu ndax machine scientifique yi ma yor dëgër na garanti na te boo ko ko yoree ba année scolaire bi jeex doo ci gis benn jafe-jafe kon daw leen dem seeti ko yéen ñi dëkkee ci région bu Louga moo xam nga nekk ci biir Louga wala nga nekk ci li wër Louga. kon nag waa Kébémer jóg leen waa Géewul jóg leen waa Daara jóg leen Linguère ak mbëlëxe njaañ ñooñee ñépp kat nañu daw gaaw seeti établissement Touba Daaru Minam ñoo ngi woowit waa région Ndar yépp ak yeneen région yi nga xam ne ñoo ngi ci Sénégal képp koo xamante ni kat bëgg nga en gros wala demi gros boo leen woowee rek incha allahu rabbi dinañu jëflante ak yow numéro yi ñu leen mën a jotee nag moo di 77 444 02 89 wala nga def 76 888 13 48 kon nag képp koo xam ne bëgg ngaa bégal sa njaboot ak bépp commerçant boo xam ne bëgg ngaa duufal say poos gaaw leen woo waa établissement Daaru Minam nekk ca marché central bu Louga avenue El Hadji Malick Sy ku leen woo doo ko réccu jeudi 6 octobre 2022 ñu ñëw ak yéen ci rovi de presse bi dooree ko stade de yéenekaay waa Real de Madrid ak waa Manchester City la fësal ca xët wu njëkk wa ñaari club yooyee nag ña ngay doxal ca Ligue des champion ba ñetti match ñetti ndam am nañu nañu neuf poñ kenn ku ne ci ñoom kon ña ngay wane seen bopp bu dee waa Chelsea ak Edouard Mendy Kalidou Koulibaly ñoom am nañu seen ndam lu njëkk jëm ci Ligue des champions ren jii ndax match ba ñu njëkk a football dañu leen dóor ñaareelu match ba ñu témboo ak Salzburg démb am nañu ndam lu ama am solo ci AC Milan ñetti bal ci dara lañu ko dóor loole tax na nooyi waat nañu ci fàttali Kalidou Koulibaly dafa départ titulaire ca match boobee waaye Edouard Mendy ca banc bala toog Saliou Ciss nag jamono jii moo ngi ci guddi ju bët setagul li ko waral moo di amul club te gone yi ñoo ngi doxal ci équipe nationale bu Sénégal ndax xam ngeen ne gone gii di Ismaïla Jakobs su nekk ci AS Monaco bi ñu ko woowee ci équipe nationale bu Sénégal doxal na keroog bi ñu jàkkaarloo ak Iran match bu njëkk ba tamit Sénégal bi muy jàkkaarloo ak Bolivie foo ballo doxal na te foo ballo tamit ma ngay wéy di doxal ca AC Milan ndax jamono ji day départ titulaire te ma ngay wane boppam moo tax jamono ji Saliou Ciss moo ngi ci guddi gu bët setagul ndax gone yi jamono ji ñoo ngi doxal ci seenu club te bi ñu ñëwee équipe nationale bu Sénégal tamit wane nañu seen bopp kii wane boppam kay ca Bayern de Munich moo di Sadio maane ndax xam ngeen ne match bu mujj Bayern doon ci jàkkaarloo ak Victoria doomu Sénégal bi doxal na na journal bi nag nee na li ko waral moo di dañu koo teg fa mu mënee ndax jamono ji Sadio excentré lañ koy football kon saajo foofee la gën a yëgee boppam moo tax ma ngay doxal bu baax a baax. ñu jugee stade yéenekaay dem groupe Futurs Médias fekk fa record yéenekaay Aliou Cissé la fësal ca xët wu njëkk wa journal bii di record nag dafa génne liste bi nga xam ne moom journal bi moom la jàpp ne Aliou Cissé gone yooyu la yóbbu ca coupe di monde ba ñoo ngi toll ci ñaar fukk ak juróom góor yoo xam ne ñoom la Aliou Cissé woo waaye journal bi nag génnewu ko mën ko dëxëñ ca biir journal bi ku am journal bi di record yéenekaay ding ci am yaatal gu yaatoo yaatu waaye journal bi tamit ñëw na ci Kalidou Koulibaly mi nga xam ne Graham Potter match yi mujj ca Chelsea da ko doon teg ci banc bi waaye démb bi ñuy jàkkaarloo ak AC Milan doomu Sénégal bi dafa départ titulaire muy Kalidou Koulibaly ñu dóor AC Milan ñetti bal ci dara ndam li nag am na lool seen ndam lu njëkk muy waa Chelsea xalaa nit mi ngi ci journal bi moom nag defati ne mëninam démb bi Manchester City di dalal Copenhague bu Babacar Xuma doomu Norvège bi dafa duble ca match boobee waaye nag ba match ba jeexee góolu Copenhague bi dafa dem ba ca Grealish ne ko Grealish yéen seen attaquant bi di Erling Haaland est-ce que nit la Grealish moo xamle kàddu yooyu nee na góolu Copenhague bi moo ko laaj ne ko Haaland est-ce que nit la ndax kii mën naa dugal France fekk fa l'équipe Lionel Messi la fësal ca xët wu njëkk wa lëndëm ak leer la journal bi boole muy ombre et lumière li ko waral moo di Paris moo demoon ca Portugal fekki fa Benfica waaye match boobe nag tàngoon na jër 1-1 la match ba jeexee leer gi nag mooy Lionel Messi ndax doxal na dugal bit bu rafet lëndëm ji mooy ñaar ñii Danilo Pereira ak Verratti bu dee Danilo Pereira moom bit bi nga xam ne Benfica am na moo ko dugal ci ay kangam maanaam moo moom démb kenn xàmmewu ko ndax doxul ca match boobee moo tax journal bi boole lëndëm ak leer ndax démb foofee ca Benfica tàngoon na jër waaye nag jamono ji Paris ma nga ca bopp classement ba tolloo ak Benfica kenn ku ne set poñ nga am muy juróom-ñaari poñ démb nag Lionel si la poule ga doxal na ca match boobee. jugee France wutali Londres Angleterre fekk fa Sun Sport moom waa Chelsea ak waa Manchester City la fësal ca xët wu njëkk wa ci waa Chelsea la njëkk nag ndax ñoom démb nooy nañu ci Ligue des champions ñetteelu bëccëg la ñu doon football amaguñ woon ndam nag ka ñu doon jàkkaarlool moo di AC Milan ñetti bal ci dara la ñu ko dóor bit ba njëkk am ca match ba doomu France bii di Wesley Fofana moo ko dugal moom nag bit boobu moo nekk bitam bu njëkk jëm ci Ligue des champions waaye ba mu ko dugalee laata ñuy mi dafa génn ci ab blessure te blessure boobee nag métti na ndax ba match ba jeexee ay bekki la doon doxee waaye loolee dinañ leen ko toppal yeneen ñaaru bitu Chelsea yi Aubameyang dugal na Reece James dugal dugal na loolee tax na nag Chelsea nooyi waat na ndax laata match bi di door ñoo nga woon ca mbabbandaare ya maanaam ca dernière place ba la ñu nekkoon jamono ji nag ñoo jël deuxième waaye dañoo témboo ak AC Milan ma ñu dóor kenn ku ne ci ñoom am nga ñeenti poñ jamono ji kon nooyi waat nañu bu dee waa mën Manchester siti moom Copenhague bu Babacar Xuma la ñu doon dalal dóor ko juróomi bal ci dara match boobee cappaculig Norvège bi di Erling Haaland waneeti na fa boppam ndax ñaari bit la dugal laata ñuy mi Silla moo ne ko tey doo fi doublé ndax ba ñu mi dellu si waatu wul ci terrain bi waaye nag ba match boobee jeexee Jack ci mi nga xam ne foofee ci mën City lay football wax na ci Haaland nee na Haaland ponkal dëgg la te li muy def mën na ko nee na góolu Copenhague bi dafa ñëw ba ci moom ne ko seen attaquant bii di Erling Haaland du nit li muy def mën na ko lool. Cristiano Ronaldo tamit moo ngi ci surnal bi xam ngeen ne derby Manchester bi footballut ko woon li ko waraloon nag ka koy tàggat waxoon na ko muy Erik ten Hag nee na Cristiano do bëgguma koo gàcceel ak carrière bu rafet bi mu def moo tax bi ñu mënee 4-0 ñu mi-temps jël ndogal ne Cristiano Ronaldo ak carrière bu mu def duma ko football ci match bii nga xam ne yàqu na ba noppi loolee nag neexul Cristiano Ronaldo ndax dafa bëggoon football ca match boobee ki ko dëggal nag moo di Erik ten Hag nee na loolee Cristiano Ronaldo mer na ko ba futu ndax moom li mu bëggoon moo di football ca match boobee man maa ni ko woon match bi duma la ci dugal di yàq sa der ndax yow li nga def ci football dafa rafet ñu jugee Londres Angleterre wutali Espagne wàcc Madrid fekk fa Marca yéenekaay munoon ngeen a dugal lu ëpp ñaari bit loolu la journal bi xamal waa Real de Madrid démb Real de Madrid Shakhtar Donetsk la doon jàkkaar lool mu nekkoon ñetteelu ba bëccëg jëm ci Ligue des champions match ba 2-1 la jeexee bitu Real yi Vinicius moo dugal ak Rodrigo waaye journal bi nee na Real de Madrid am na 36 tirs fanweer ak juróom benn yoo xam ne Real de Madrid mi ngi dóor bal bi mu ca kàng ya quatorze tirs rek la ñu ca kadare quatorze nag moo di fukk ak ñeent tir cadré moo di bal boo xam ne ca kaŋ yëla jëm te su ko kenn laalu day dugg loolu mooy tir cadré Real de Madrid am na ca quatorze moo tax journal bi ne leen manque d'efficacité maanaam xarañ ci kanamu kaŋ yi moo leen manqué woon démb muy waa Real de Madrid ndam li am na solo lool kon Real daanaka dem na ca huitième de finale ya ndax ñetti match la am am ñetti victoire surnal bi tamit ñëw na ci coupe du monde 2030 bi ndax xam ngeen ne Espagne ak portigal ñoo boole woon seen doole Ukraine nag dafa ñëw dolleeku ca loolee tax na président fédération espagnole de football mi ngi tudd Luis Rubiales ma ngay wax ca loolee nee na ñun li ñu bëgg moo di ñu jox ñu coupe du monde 2030 bi ñi daloo ko te su fekkee loolu am na football dinañu ko jox li mu yeyoo moo xam ñi toog ci kër yi di seetaan la ak ñi nga xam ne ci stade yi lañ noppi ngir dem fa dinañ leen jox football bu doy te dinañ leen jox tamit football bu neex loolee ki ko xamle moom nag mooy président fédération fédération espagnole de football moo xam xamle kàddu yooyu ñoom ñetti réew yooyu li ñu bëgg moo di daloo coupe du monde deux mille trente muy portigal Espagne ak Ukraine ñu jugee marka yéenekaay jël AS yéenekaay Vinicius la fësal cëqër wu njëkk wa football bi rafet na football bi tamit am na li manqué moo di ay bit ndax Real de Madrid mënoon naa dugal lu ëpp ñaari bit ci match bi doon dox démb ci digganteem ak Shakhtar Donetsk ndax am na 36 tirs waaye ñaari bit képp lu dugal ñaari bit yooyee Vinicius ak Rodrigo ñoo ko dugal moo tax journal bi ne leen mënoon ngeen a teel a rey match bi waaye defu leen ko seen supporters yi nag tiitoon nañu ba ca waxtu wu mujj wa ndax benn bit képp ngeen jiitoo Shakhtar Donetsk loolee moo tiitaloon supporters yi dortu mun nag dëggal na dàqug gi ndax da ko fekki foofee dóor ko dóor yu métti ñeenti bal ci benn la mun dóor Séville loole tax na dàq nañu gi mi nga xam ne def na foofee ñetti at kon nekkatul seen coach ki ñu jàpp ne moo koy wuutu foofee nag mooy xor Jorge Sampaoli mi nga xam ne moo yoroon Marseille ndax daanaka juboo nañu te lépp mën naa officiel tey ngir mu xaatim foofee contrat doxal ca Séville ñu jugee Madrid wutali Barcelone fekk fa esport jeex na tàkk diggante Barcelone ak Antoine Griezmann jubo am na ci diggante Atlético de Madrid ak Barcelone ngir doomu France bi xaatim contrat définitif ca Atlético de Madrid la ñu jubo nag mi ngi toll ci vingt millions d'euros te fan yii di ñëw mën nañu ko siiwal ndax ñaari kër yu jubo nañu loolee nag su amee ba noppi El Cholo di Diego Simeone mën naa départ Griezmann ndax li tax Griezmann daawul départ titulaire moo di dañoo bindoon ca contrat ba ni su fekkee football na fi ay match yu bëri nekk titulaire da nga koy jënd far la force moo tax ca Atlético de Madrid Antoine Griezmann daawul départ titulaire ndax loolu moo nekkoon ci contrat bi su fekkee match yi muy football titulaire dafa bari ba ëpp yéen da ngeen koy jënd far la force loolee moo taxoon ñu koy teg ci banc bi kon nag su loolu yembee Antoine Griezmann mën naa wëy di nekk titulaire ca club boobee di Atlético waaye Barcelone nag mer nañu ba futtu ki ñu mere moo di arbitre bi nga xam ne moo doon arbitré keroog bi ñuy jàkkaarloo ak Inter ndax liñ xam le ñoom waa Barcelone moo di moo yàq seen match mere nañu ko trop loolu la journal bi xam le ñu jugee Esport jël Mundo Deportivo Clamour mer ba futtu nag moo am ca Barcelone keroog bi ñuy jàkkaarloo ak Inter li arbitre bi defoon ba léegi mënaguñu ko wanaasu ba tax na sax démb Barcelone dafa woo arbitre yu baree baree bari ngir laaj leen action boobee amoon ci faute bi nga xam ne Dumfries moo ko defoon ci kanamu Ansu Fati ngir xañ ko mu mbëkk bal bi loolee nag arbitre yi nga xam ne Barcelone woo na leen arbitre yi yëpp la ñu xamal waa Barcelone moo di bal boobu man suma ma doon arbitré penalty laa koy tiire ndax penalty la loolee nag moo gën a tax waa Barcelone mer ndax kat penalty boobee su fekkoon tiire nañu ko mën nañoo jëlee foofee benn poñ moo tax ñu mer ba futtu ñoom waa Barcelone ñoom nag ña nga doon waajal def plainte waaye boobee nag Mundo Deportivo nee na Barcelone teg na ko ci suuf la ñu bëggoon moo di porter plainte arbitre boobee ëpp nañu ca ndox mu sedd foofee ca Barcelone nag Kessié ak Christensen dañoo blessé bu dee Kessié moom taxu kaa garaaw ndax mat retour Barcelone Inter bi sax soo moytuwul doomu Côte d'Ivoire bi mën na koo football classico bi tamit doomu Côte d'Ivoire bi mën na koo football bu dee Christensen moom wóoragul mu football classico bi te wóoragul tamit mu football retour bi nga xam ne moo war a dox ci diggante Barcelone ak Inter. loolu la journal bi xam le ñu jugee Espagne wutali itali wàcc Rome fekk fa Corriere dello Sport waa Juve la fësal ca wu njëkk wa démb Maccabi Haifa bu Abdoulaye Seck la ñu dalal match boobee nag Juve moo ca am ndam lu ama am solo ñetti bal ci benn la Juve dóor ay Haifa bu Abdoulaye Seck waaye doomu Argentine bii di Ángel Di maria kenn du moom ca match boobee ndax doxal na ñetti passe décisive la def dugalut waaye doxal na ndax ñetti bit yi ñu dugal yëpp moo ko paas kon kenn du moom loolu la journal bi xamle waaye waa Barcelone nag ba léegi dañoo mer ba futtu ci penalty bi nga xam ne arbitre bi xañ na leen ko keroog bi ñuy jàkkaarloo ak Inter loolee la surnal bii di Corriere dello Sport xamle ñu jugee Corriere dello Sport dem Milan fekk fa la Gazzetta dello Sport Juve bii de Juve Rabiot la loolu la journal bi xamle ndax ndax démb bi ay Haifa la doon dalal dóor ko ñetti bal ci benn ñaari bit yi doomu France bii di Rabiot moo ko dugal moo tax mu ne yuufe bii de yuufe Rabiot beneen bit bi ki ko dugal moo di Vlahovic loolee tax na nag waa yuufe nooyi waat nañu ci Ligue des Champions bi li leen yàqal kay moo di Paris mi nga xam ne ca Benfica la demoon ñu témboo 1-1 loolee tax na kat seen yoon xaw naa xajam ndax su fekkoon Paris am na ndam rek dinañu am yaakaar bu baax a baax waaye jamono ji nag Paris ak kii di Benfica ñoo nekk ca bopp classement ba ku ne am na juróom-ñaari poñ bu dee waa Juve moom ñetti poñ cepp la am loole moo xajamal seenu yoon loolu la journal bi xamle bu dee waa AC Milan ñoom mbéj wu tàng jër la ñu jëlee ca Angleterre bind bu tooy xepp la ñu leen jox anglais yi ñoo leen jox bind dóor leen ñetti bal ci dara. waaye Pioli mi nga xam ne mooy tàggat AC milla nee na AC milla gi ma gis démb nag du gi ma xamoon kon démb amuñ woon équipe loolu la ki leen di tàggat xamle di Pioli